Relancer nañ ko bi ñu nekkee ci vacances citoyennes et fi ak euh, deux mois inshallah président de la république dina ko inaugurer. lu melni ni que daggu kër euh, kër Samba Kane kër Samba ku ne xamné travaux yi démarré gul wo matériel bi yóbbu nañ ko sur place ba lundi inshallah ñun dinañ fa dem sur place lancer démarrage travaux euh, sangal kam waxi nop amon nañu problème procédure yooyu yëpp levé wu na euh, ci nawet bi dañoo abaloon euh, population yi fa dëkk suuf si pour ñu bay ci profito ci nawet bi bu loolu jeexee rek dinañ démarrer travaux yi foofu itam kon mu demee ni que mu mel ni que lu demee ni Prodac ANPEJ même chose dëgg la euh, liggéeyam xawoon na ralentir tuuti parce que DER dafa ñëw renforcer dispositif bi nga xamante ni président teg fi pour financement entrepreneuriat et tout mais euh, compté nañ année 2020 2020, renforcer ANPEJ ba nga xamante ni li mu daan def ci liggéey da koy gën a euh, dooleel pour que jeunesse Sénégal gën a gis seen bopp ci politique président Macky Sall.